tamit li ñuy wax dañ ko gëm te kii ñu àndal moo nu dooleel wala ma ni ko yóbbu wax tiix moo ñu may ma teel a jas kon man ko laay dem may laal su ma waxul ci waali du ma nit li ngeen def ñaaw na trop li ngeen def dara gënu koo ñaaw ci àdduna xale bu doon nekk ci yoon ngeen bëggoo xeex moo tax waali dañuy teg te ki ngeen koy def du ragal waali du tey lay gën a xew du la yéen a koy def koo xam ne du amul dara ay ragal amul ay reetaan sax ngeen ko def ba mu génne gisoo ko gisoo bu ko def yaay seen bàyyi ñuy taxaw di mbedd naan ñuy taxaw naan kii ñëw na ay mbedd mbedd mbër yu mais ñu ngi de de merde de merde la mais lii lii lii bëri lii foo la santeex la way la lii way kese la après jeex ku i xam nga ni ñoom dana ko gis waaye xam nga koy gisee ñoom ci ci mel ne koy gisee de ñu boole la nii wala waaye romb na la waaye amul seen waaye doo def leen fréquenté ñoom seen fréquenté ñoo xam fu ñu fréquenté ñoom xam seen fréquenté fan la caara virage jeex na waaye teexu bi kii sa place Paris këram nga Dubaay jeex na man mi sax maay daw Dubaay mais seen seen seen quoi la suuf fii la yam te ku la gën a xasaw gémmi nag ak ma suul sama ndey seen gémmi yoroo foos xasawa xasawa xasawa xasaw xasawa xasawa xasaw mais ñi ñoo pit man maa ngi énervé jox ma ataaya ba daal s'il te plaît même ataaya damay def même ataaya demandé loo même ataaya demandé tee daal fi fee damay putain de merde man daal damay naan damay énervé énervé damaa énervé tey dama énervé tey damaa énervé mayoo ma mayoo ma bourgeois parce que waaw mais lii lu ko gën a ñaaw ku la koo gis ngeen liggéey raw tool ndax xasaw xasa dafa xasawa xasawa ngeen bëgg a waale suñu borom ko fi teg mënoo leen fexe ba waale suñu borom ko fi teg ma bourgeois wala bàyyi ba si kanam ma bourgeois wala bàyyi ba si kanam ok léegi mënoo leen fexe ba suñu borom yàlla li mu ko def yàlla aw jugaa li mu li mu am euh, li li mu am nii suñu borom moo ko may. du dëgg li mu am nii yàlla moo ko may mën na jël xale bu ndaw xew ngeen bëgg koo toroxal mënut a torox xool stade bi de boo génnee waali waali waali waa ñoom am kenn ko tudd seen tur. sol a ay cité sol ay costume xasaw ñii sol kenn xamul lan lay sol ñii ay maillot ay tàkkalma ñii sol ay robe ay baxa ñii sol ay grand boubou yoo xam ne dem suur nañ ko cuuraaye cuuraaye ci garaabu bi man da si daaw lañ ko sol ñu si daaw tax moo tax waaye daaw <laughs> Sénégalais il faut ngeen vigilant tamit tuuti ngeen dooleel waaye ñoo ngi ko dooleel xale la te lii ku mu ku mu yeewul tey warulaay yee àdduna loo gis am na xeex ñëw ñëpp di sokkeen nit waale buy way seenam ñu duñ fay dem mu ko di baax ko man maa koy dem di fekki man may ko xaalis man wala Ndiogou yéeg may ko xaalis mais ñoom dañuy dem ci kaw seen yi di bàqu di yuuxu mel ne dañoo gañe gañe wuñu dara kii gañe mooy kan kii woyof ñëpp topp ko mu ngi mel ne waali nga daan waali waali waa waa waa waa xoola mu mel ne ñu ñu moom moom rek la fa teg xam ne loolu may bi yàlla la c' est le travail qui maman waali saye dafa liggéey loolu sa kër baay loolu mënut a échec parce que yow it da ngaa baax da ngaa généreux baax trop trop trop waali képp ku àndal dimbali yéen ñi ànd artistes yi yéen ñëpp a tolloo xaalis ñi un million ñi cinq cent mille ñoom ñëpp a tolloo xaalis ñoo seen xaalis ñun ñoom ñëpp a tolloo xaalis ñoom ñëpp a tolloo xaalis yor oto yi xas oto yi ñaa man ak léegi tey laa jënd voiture blanc maa ngi deux fois jënd naa oto tey li tax ma jënd ko dama énervé man su ma énervé damay jënd oto jënd naa oto tey kenn baal ma ci publicité oto bi ah mais c'est normal nit bu la yàlla may da koy wane xaw a guusuwaat tuuti damaa ah, il faut ngeen xam ni waali su waali waali waali waali suñu borom ko fi teg waali waali yàlla la li ngeen def li ngeen gën a yokk bësam li ngeen ko gën a def mu xew li ngeen ko gën a def suñu borom xew waaye nu muy ñëwee lu mel ne fête football lu mel ne ñu ñu immigré stade de football lu mel ni suñu borom jagleel ko xoolawaale final Sénégal mos a jël coupe mu toog final yàlla rus yàlla Dakar rus yàlla Dakar rus trop match bi métti mu toog diiñ xool bu ñu gañoo Sénégal waa di la rus ak ñeneen ak ñeneen ba Sénégal jël coupe mu taxaw ci final yàlla ko may loolu yàlla suñu boo boo àndeek yàlla ànd ak suñu borom yàlla loo def yàlla da ciy ànd wala yàlla ko suturaal li ngeen def dafa ñaaw li ngeen def dëgg na ko ñaaw yéen bu mal xiyaam ci di mën a xool papaay waali na ko papa xam naa da ngeen gaañoo di ngeen fekk fa papa coon parce que di ngeen gaañoo léegi bu te papa coon xam naa ko di ngeen gaañoo dinañ fëgg yéen ñëpp la yee kër kër sama doom na nga nekkee moom foofu àllaaxira nga naan ko non coon parce que c'est désolé sa coon bi danoo sonal loon papa coon ne non non ah loolu loolu parce que man maa ko liggéey bàyyi ko fa waroon nañ koo ñàkkal fay wala nañ ko tooxal il faut kon deew ko dee nga yàlla kii kii moo tooxal sama doom te yàlla xam nga la bëgg kuy dimbalaate te waaye kuy dimbalaate loolu mu tane ci àdduna kon yéen war ngeen xam ju àdduna àdduna yàggul àdduna yàggul li ngeen def waali dafa ñaaw dafa ñaaw trop trop trop dem ba ñëpp ñaawal ko am Sénégal yëpp ko ñaawal yéen amoo leen am de yéen ngeen a trop Sénégal yëpp leen bañ lii mën ta weesu ñu jéppi leen li mën ta weesu sote Sénégal yi bañ leen képp ku def waali lii barke Seydina Muhammad laa la wax Sénégal yi jéppi nañ la lii dafa ñaaw trop trop trop trop trop ci xale bu ndaw lan moo ay lan moo ay lu rafetul nan leen ko rafetal parce que àdduna amul solo nan lañ ko rafetal xam ne àdduna amul solo àdduna billaahi wallaahi barke yonente àdduna jeexagul de àdduna jeexagul ni ngay jeex rek isi ay comprendre loolu dafa ñaaw si seen seen coalition boobu ngeen dem du du ànd sax kii kii dafa gàtt kii mel ne paañ kii njoor jabet kii weng ay taatam xóot mel ne teen kii biiram gàtt mel ne supame kee kee jéll kee ke ke ke gémmiñ gi xasaw ñi ke ke kee pata mi da xar mbër kee kee gémmiñ gi matu ah ñi ñiy jéll mais mu tane ci àddina loolu mu tane kon il faut ngeen xam seen bopp nga xam ne suñu borom yàlla moo fi teg waale il faut ngeen intelligent xam loolu il faut ngeen xam loolu man nag li tax duma daw duma daay lenn lenn ba nit di tere mooy diffamation déjà à part parce que man nag ci dëkk bi laa dëkk doomi dëkk bi laa waa dëkk bi bëgg ku ma laal rek wala képp ku ma woo ci ay détails <laughs> man ak yow ñoo koy àtte parce que du ma ragal doone pawra bu noo dëkk Pikine yow doo Pikine di ragal man <laughs> noonu ku ma soxla rek ci ay bu dee xeex la pare na 77 442 17 03 77 442 17 03 nii nag ku ma woo léegi nii nag ku ma woo léegi nii dama dama lay ku ma woo léegi nii dama lay raccroché au nez te doo ma duggaat bu ma kenn appel ni ma appel plus bu ma ni may woo wala hmm. bu ma kenn woo bu ma kenn woo bu ku ma soxla dinaa la woo sa bopp sama numéro 77 442 17 03 bu ma xool ni may woo ni ma appel plus